seen show ñuy am mbégte saa su ne jàkkaarloog yéen waxtaane euh, tolluwaayu réew mi ak actualité sunu tamu tey ñu bëgg ko yaatal a baax bokk na ci crise sanitaire bi lëmbee àdduna rawatina Sénégal di mbas di Covid 19 ak Sénégal bi nga xamante ni nii euh, pàcc boo ci laal secteur boo ci laal euh, urgence la ci ñu mun koy joyante ngir rek réew mi bañ a ci wàllu koom ak ci lu mu mënti doon ngir waxtaane ko nag ba am na nu mbégte dalal fi Mor Gassama di économiste ñu di la nuyu bu baax a baax di am mbégte ci dalal la ci seen show. oui Mouhamed maa ngi lay fay di nuyu ñoo bokk plateau bi yëpp di nuy aussi seen téléspectateurs yi. Mhm. ah waroon nañu fi am itam kilifa bu Y'en a xëy na mi ngi ci yoon bi euh, mun na am balaa émission bi di jeex dinañu euh, dab incha allah euh, du ma ci wet émission bi daa ci ànd ak ndey Dimbé ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye léegi léegi ñu taab ci waxtaan bi. kon waxtaan bi dañ koy tàmbalee euh, Mor Gassama ci lu jëm ci wàllu ko Covid 19 ak wàllu koom gi nga xamante ne ni dañu euh, bëri dëppoo nañu wax ne dafa ndërmeelu te jeexital euh, mi ngi tukkee ci li nga xam ci moo di mbas mi di Covid 19 alors tey boo ñu doon xaymal ak jàngatal fan na koom-koom bi tollu ci mim réew en tout cas te ci biir mbas mi di Covid 19. Euh, waaw xam nga euh, mbas mi bi mu ñëwee moom euh, dafa am mesure yoo xamante bi déjà dañ ko jëloon pour mën koo xeex mais en même temps boo xoolee dëkk nu muy fonctionner comme ni muy fonctionner mooy ne boo demee ba at bi di waaj jeex da nga préparer sa budget pour at bii di ñëw budget bi ñu préparé woon ci at bi nga xamante def ay projection de croissance budget bi ñu préparé ci bi ak projection de croissance bu xamante bi ci départ bi yaa ngi ko doon projeté ci mu dem wàcc wàcc ba presque nekk un environ zéro virgule quatre-vingt-sept pour cent donc xam nga ne kon mbas mi laal na walaal na koom bi lool lool daf ci am secteur yu bëri yoo xam ne nag vraiment dañ dermelu dañ ak hôtellerie restauration mmh. fi emplois direct ñi ngi menacé euh, nga gis ne euh, secteur informel am doole lool ci réew mi nit ñi sonn nañ trop euh, mais en même temps aide nga xamante aussi nguur gi mu ngi ko doon prévoir pour jëmee ko ci ñoom li ci gisuñ ko mmh. voilà ñu taxaw di dund crise boobu. Ah, jotuguñ ko réglé donc beneen problème bi dinañ ko gën a yaatal le temps que ñu bàyyi Fatab du mu tàbbeeg yow ci waxtaan bi ginnaaw bañ la nuyoo. maa ngi lay fay Mouhamed di nuyu Ndeye met nuyu également euh, euh, économique démb euh, daanaka li nga xam ne prospective plutôt économique démb li ñu fësal bokk na ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi Sénégal am ci koom gi ci nit ñi nga xamante faatu nañ cas grave bi gën a bari rawatina ñu ngi wax ci ñaareelu vague bi lan moo mën a doon xay na euh, euh, euh, solution pour que loolu ñu génnee ñoom ne ay rëq-rëq lu ko mën a indi pexe. waaw boo xoolee kaay yi dëkk bi jafe-jafe yi mu dundu tan yi fan yi li ko waral d'abord mooy à un certain moment vraiment dañ dem ba perdre contrôle bi. voilà parce que bu bu njëkk ba euh, boo doon joxe résultat chaque jour donc ce qu'on appelait les donc annonces yi ñuy def euh, da ngay gis ne vraiment cas euh, contact yi ñoo doon ëpp foofu cas trans communautaire yi. léegi demee wut noonu c' est le contraire et que chaque jour sax da nga gis affaire bi explosé cent cent finalement deux cent deux cent presque cent chaque jour. voilà loolu métti na mais en même temps bu daan da ngay chercher vraiment solution il faut nga gën a davantage si si respect des mesures barrières. faire voilà mais en même temps comme nit ñi dañuy liggéey il faut ñu développer seen capacité de résilience mm-hmm. entreprise aussi ñu jéem a adopter télétravail fépp xamante ni mbooloo dafay daje nga xamante ni seen présence c'est pas absolument nécessaire war nañu a liggéey si à de chez eux loolu aussi loolu war a a nekk la euh, mm-hmm. euh, beneen bala nga yeggale <laughs> waaw maanaam loolu je pense que lu baax la parce que euh, crise moom bu ñëwee il faut faire face te liñ ci li gën rek mooy nga am résilience mm-hmm. voilà nooy def ba génn ci loolu daal moo ci am solo alors rek xalaat ne pexe na mooy couvre-feu bi ñu daal di koy prolongé waat ci li nga xam ne moom moo jëm ci état d'urgence bi euh, couvre-feu boobu nga xam ne njëkkoon nañu ko def douze jours euh, laat ko huit jours euh, boo ko dee seet ci xayma ci jafe-jafe ci wàllu koom lan la jural sénégalais rawatina le secteur informel. waaw déjà couvre-feu bi sax buñ xëy na peut-être buñu ko temps bi may mën nañu waxtaan sax ci pertinence bi. Mhm. voilà mais bu ne jël nga décision yu mel noonu déjà ñëpp ñi xamante ni dañuy yëngatu ci guddi gi seen activité da ngay xam ne sax dañu yëngu ci ngoon gi parce que koo xamante ni jàng ñu bi fa sori ñun la vingt une heure naan fekk sa kër ça veut dire que euh, fu 17 heures jotee wala 16 heures nga commencé def say vacances 18 heures nga départ pour bañ a tardé mhm. voilà donc ñoo ñëpp seen activité dafay ralenti bu baax baax mais ñi nga xamante moom vraiment guddi lañuy liggéey moom daanaka ñëpp seen activité dafa taxaw carrément dafa taxaw voilà euh, loolu aussi lu ñu waroon a jàngal la parce que est-ce que réellement pertinence am na ci euh, parce que ñi nga xamante bi ñi ngi ci restauration yi hôtellerie et tout ça surtout petit commerce bi. yaa ngi ci informel bi xam gi ñu si ëpp ci lañ dañuy jënd ak ñu nekk ci marché yi ñu ko mën a xaymaa ci wàllu chiffre perte économique bi mois de mars ak léegi bi mbas bi duggee ci réew Sénégal wala boog benn période ñaata lañu mën a am euh, ci xayma ci loo xamante ne Sénégal xëy na am nañ ci jafe-jafe ci koom. Euh, des chiffres waaw parce que fi mu toll nii moom jotuñu chiffre officiel. voilà lu wóor ba leer mooy bu daan il faut nga def lu ñuy yi. cest dire que ministère bu nekk bu dante par rapport ak technicien bi ko indi rapporter ci ay chiffres bu ñu comme ñu mën la jox chiffre global. mais bu dul loolu chiffre ba nit avancé la rek day nekk lu arbitraire. voilà euh, et loolu moom je que lu nit war a mën a éviter la mais boo xoolee li xew nga xam mbir bu doxul bu baax. très kooku moom jarul li ñu wax. Euh, on n'a pas besoin pour. jarul ñu koy xool euh, lu terre à terre la dafa dafa dafa fës ñu jox euh, Dimet kàddu gi mu tàbbeeg yow ci tontu yeeg laaj yi ginnaaw bañ la nuyu. merci beaucoup Mouhamed ma lay nuyu di nuyu Fatou Abdou di suñu gan docteur alors deuxième vague la ñu wax. Mm-hmm. te gis nañ le président Macky Sall wax ni il faut apprendre à vivre avec le virus mais lu ñu gis fii tey mooy am na ñenn ñu ñu tëj ci yenn localité yi. tey est-ce que gisoo ni am na stratégie bi ñu war a teg comme ni ñu tegee woon première vague. Euh, waaw loolu lu war a mën a nekk la euh, mais tëj bi aussi peut-être war nañ mën xam lu ko waral parce que ce qui président nii rek tëj ñi. dafa am information euh, ànd waxtaan ñi nga xamante ni ñoo koy xelal ak ñi nekk yëngatu ci mbir mi su suma jàngat bi ma xam ne ma information bi ma jotoon ci seen naataango yi. wax ne carrément ñoom waxtaan lu mat juróomi waxtu. li ñu ci jógee le président jël décision bi voilà comme nag moom dafa am ci bokk ci responsabilité protéger population bi yëpp ñi ma ànd ak ma ni ko conseil mais ñu rappelé na un conseil n'est qu'un conseil donc rôle mënut a weesu joxe xalaatam. mais ki jël décision yi <laughs> mooy président. moom bu jàppee ne loolu mooy liggéeyu population bi dañ koy nangul. Mhm. waaw maintenant buñ ko nangul pare nag lu tere ñu wax suñu xalaat suñu xalaat moom mooy ne euh, effort yooyu ñu def foofu noonu wala force loolu li ñuy déployé. côté boobu war nañ ko mën a déployer peut-être ci le respect des mesures barrières parce que nit ñi génn suba ñu ëpp foofu euh, marché yi booy wàññi ci école yi. ñu dem ci transport yi gis nañu yu ci ëpp vraiment respect mesure des na mhm. parce que foofu la ñu waroon gën a insister davantage mhm. pour man moo doon ëpp moo doon ëpp sol région yi ñu isolé aussi euh, pour pour pour euh, c'est euh, mhm. gis na ne peut-être war nañ ko mën a ñu ngi xalaat ne sax lu ñu war mën a élargir la parce que fu mel ni Kaolack ak jur région Diourbel fan aussi affaire am njeexital ci koom gi wala réellement ñun war nañ mën a dund ak virus bi di def suñu activité mais loolu moom mooy li parce que comme li wax loo xam ne commencé na tax ma fan la yem. ci micro bi ah. loo xam te en même temps euh, ñi ñi si xañ fi bëri ci informel la parce que il faut le dire. secteur informel bi. Mhm. ñu ci ëpp ci lañ yëngatu. Mhm. Euh, koo xamante ne bii nag li mu xëy di am moom la yoree njabootam. boo ko bëggee toog loo danga koy sonal. d'accord voilà donc ñun suñu système bokk ak tubaab yi. Mhm. nga xam ne li ci tamit xam na li war am mën ko xayma jox la ko wala la lu ko jege nga ne dundee da nga ko mën a continuer dundee moom demeewul noonu donc moo tax ba jàppale nit ñi bu baax ci respect mesures barrières yi peut-être mooy leen jàppale wàlla ci jox leen ay masques mu jàppale ci xalaat en tout cas gën leen a conscientiser ba kenn ku nekk xam danger bi d'accord ci première vague bi gis nañ président euh, débloqué ay koppar jënd ceeb ak diwlin jox ko askan wi mais fii réew mi toll est-ce que tey euh, nguur gi amaat na doole boobu noonu dugal ci poosam ñoqi dimbale waat askan wi euh, parce que première vague bi déjà même xaalis boobu noonu difficilement lañ ko amee ah nekkutoon lu yomb Euh, yaa ngi doon xalaat pour xaw a suqali ko tuuti pour mën a lijjanti leneen far affaire bi ñu war agsi mhm. donc ça veut dire que euh, lu jafe doon ci moom voilà mais nag bu métti bu mën na ko uti mais nekk loo xamante ni vraiment lu ñu attan la gis nga suñu uti ko maanaam delluwaat ci bailleur lebat xaalis waaw mën nga ko lebe ci bailleurs yi comme mën nga ko lebe aussi financier bi. Mhm. voilà lancer un emprunt obligataire euh, ut xaalis mais xam nga lépp xaalis rek pour jooju seetlu gën nañu dafay xaw a tuuti. voilà moo tax li gën mhm. leen dalal ba nga xam ne lii mooy danger bi rek ci nekk lii nga war def. parce bu ñu la déggee dafay mel ne le pari de l' économie waroon teg ci le pari de la santé puisque moom loolu la waxoon bi muy wax également. en tout cas les deux vont ensemble. Mhm. mais économie moom euh, mënoo koo xa waxtu ba ko santé d' abord. parce que bal olof ñaa neen bala ngaa ne naam ne fa. Mhm. waaw tey ñun ñëpp nekk xëy nga liggéey si mais ku ci sa yaram di métti hôpital nga dem doo liggéey. Mhm. voilà donc moo tax la santé prime surtout parfois bu dente ne dem ba gis ne il faut nga jël ay mesures radicales donc ko jël voilà mais aussi dafa laaj accompagnement comme moom laa wax. Ah. suñ réew ak réew bokkun ay réalité xanaa ñu taxaw ci tuuti docteur ni Sénégal géré wàllu koomam ci ci ci crise bi ak ci mbas bi mel na ni naam santir na ko waaye euh, mel na ni euh, euh, kuy bëgg a lab dem bay waaj a génne bopp bi tàmbali di waa waaj a suqaliwaat bu ñu fàttali ko njiitu réew mi wala yeneen ci autorité yi waxoon nañu ne bu nekkul woon peut-être mbay mi Sénégal pour mu jugaat ci wàllu koom beneen jafe-jafe lay doon est-ce que jàppoon ne Sénégal def na effort quand bu bu bu yaatoo yaatu ci xool yan yoon la woon mën a jaar ngir depuis ba léegi du menacé. bon parce que même mbay mi il faut relativiser ah. il faut relativiser parce que dañoo tàmbali li ñuy wax ay chiffres xam ne amul. Ah, ah, ah, waaw parce que ba ci gerte gi. Mm. liñ la wax ak li Sonacos collecté gum par rapport ak réalité terre yi wuute na boo xoolee daaw même chose mbayum ceeb mi gis nga daaw chiffre yi ñu fi génnoon. dañu wax presque ay million huit cent FAO dafa dem ba weddi loolu te bu ba xool importation yi. ñu xool aussi li nga xamante ni euh, moom mooy différence bi nga gis a taxaw lu gouvernement du Sénégal wax. Mm. voilà ba tax na ne campagne boo xamante ni préparé woo mm. nga jël semence yi ni nga koy dafay doy waar parce que parfois ñoom ñoo ngi seen terme ay gros producteurs. Mm. jël nit jox ko cent tonnes deux cent mille ou quatre mille tonnes bi nekk sama jolof daara jolof boobu wala Fonguelemi moom lu ut wala cent pour bay nga xañ ko en plus de cela système la productivité dafa faible. trop campagne préparé préparé ko production na joxe engrais bu dañ nga jàpp ne loolu moo tee économie bi vraiment da ngay wax loolu mhm. d' accord alors euh, Thiat kon euh, daal waaw euh, kilifa plutôt <laughs> xam nga nag ñoom ñaar sotti jeg der ki kilifa ñu bu baax a baax di am mbégte ñuy fàttali ne kon daan nga ñuy dab ci ci biir émission bi mel na ni tardé ko dara sax waaye lu ñu bëgg a laajte lu njëkk mooy premier vague bi jaaroon nga fi ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu mas meek mm-hmm. waaye gis mm-hmm. nañu ne léegi tolluwaay bi dafa gën a yéeme ci réewum dafa mel ni cas yi saa ñu xéem yi gën a yokk en ni amatul Thiès ak Dakar rek gis nañu ne région yi foo dem euh, mbas mi mi nga fën a xoos yow sa jàngat bu njëkk par rapport ak ni Sénégal di dundee ak mbas mi di Covid 19 lan lay doon. waaye salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateur u Sen Show Sen TV di nuyu également sama grand bi ma fi fekk ak yéen ñëpp alors donc man jàngat bi ma ci am mooy que ni. Euh, c'est-à-dire euh euh, euh, euh, le virus nous a échappé daf nu échappé alors euh, li tax ma ne daf nu échappé mooy ci première vague bi bi mu ñëwee au moins quoi qu'on puisse dire jëloon nañ les mesures qu'il faut sensibiliser ci les Sénégalais yi ba ñëpp adhérer ah. ba ñëpp porter aussi le combat mais à un moment ñu dem ba ay ay ay ay ay yu kenn xamul côté communication foofu la état fayiree ba nga xamante ni population yi dem ba gëmatuñ ko ne ndekete politique la woon c'est ça que tu entendais ndekete dañu doon nax naan ko coro business effectivement nga gis ni corona bi man j'ai man j'ai vu des des des gens yoo xamante ni ci corona bi dañ ci dañ ci enrichir gis naa ko man donc je pèse bien mes mots ci télé laa ne alors yeneen sénégalais lambda yi mel ni man gis aussi ñoo xamante ci corona dafa defar seen affaire. Mm. ñu ne ah kon affaire bi c'est du business. donc loolu moo tax mu dem ba échappé ñu il faut être sérieux et nous sommes dans un pays boo xamante ni malheureusement les dirigeants ne sont pas sérieux alors quand les dirigeants euh, quand il y a un manque de sérieux au euh, haut niveau dafay wàcc ba ci suuf. dañuy dem ba koy foyee dañuy dem ba dootuñu gëm dara lu état di wax. lan moo la doyul ci seen doxalin ba nga tudd manque de sérieux boobu ngay wax. mais mooy li ma wax. tey jii ñu ne la lii ginnaaw suba ñu ne la lële. Mhm. da ngay gis ci statut yi par exemple ay xale di fowee man gis naa ay xale yuy fowee ne aujourd'hui d'après les trucs virologiques ña ne ñi ña ña 500 <laughs> sur 500 tests. sur 500 tests les les les 607 sont revenus positifs. 500 tests les 607 sont revenus positifs tu vois. je sais pas ndax ay juum la wala ay lan la mais après booy yi sénégalais yi jël loolu def ko fo hmm. cest dire euh, il faut être sérieux et il y a un manque de sérieux mais kilifa euh, stratégie de riposte bi état bi def bokk na ci couvre-feu bi nga xam ne wax nañu ko vingt jours après euh, ñu daal di wax démb décret bu génn bu ñu def le vingt deux les sénégalais jot ci le vingt six puisque daanaka ci la ci ñëpp jotee jàppoon ne loolu stratégie de riposte la boo xamante ne mën na euh, faagaagal quand même faire bi dakkal ni muy lawee ci yenn régions yi maa ngi gis ci suba je je tribune la Euh, ñu def lan mooy efficacité wu couvre mhm, mhm. dem bi ñu ko defee ba léegi cas yi day gën a yokk kon lan mooy efficacité bi c'est-à-dire c'est des questions que les gens se posent aussi mhm. su fekkente ni dañu jël benn riposte ñu dawal ko ñu njëkk a jël douze jours ñu gis ni affaire baa ngi besewu dinañ ne akoon ah, couvre-feu bi am na njëriñ ñu dolliwaat huit jours ñu gis muy gën a besewu mais boobu ba léegi bi ñuy jël euh, stratégie de couvre-feu affaire yi day gën di exploser di ne seen xam-xam màcc na ci mbir mi ne benn waxtu couvre-feu sax nag njariñ la ci li nga xamante ne mooy dakkal propagation feebar bi. kon nañu dawalaat vingt jours yi peut ñu doog a def analyse wala ñu doog a def bilan ci loolu. Mhm. parce que ay mesures moom bu ñu ko jëlee moom dañuy gis des résultats dans l'immédiat. Mhm. sérieusement parce que lii du feebar boo xamante ni da xaar ak da ngay tactique kii feebar la boo xamante ni ci saa si dañu war a gis ay résultats. Mhm. li ma jàpp duñu état buy tâtonner amuñu état buy tâtonner je pense que ni bu ñu demee bay jël ay mesures war nañu jël mesures yoo xamante ni dafa méngoo ak ñun mais on doit pas être là di copier benn booy bu ndaw bu nekk en France su booy bi ne dafay def lii euh, pa bi nekk Sénégal préfet bi ne moom tam da koy toppandoo def lii su booy bi ne nii la koy faje France bu Sénégal alors couvre-feu boobu moom moo tax peut-être euh, excusez-moi Covid bi moom moo tax peut-être ñu yóbbu mooy état d'urgence état de siège catastrophe naturelle ou sanitaire bi nga xam ne dugal nañu ko ci biir euh, ñu bëri jàpp jox na le président de la république beaucoup toutes les prérogatives yu mën a tax mu jël yenn décision euh, euh, est-ce que njortu loole mën na ko jëfandikoo. soppali na Sénégal waayo te li ci kanam raw li bët. maanaam. mais attends Macky Sall soo ko joxee le peu de pouvoir daf koy utiliser. nga jox ko nag tout ce qui est pouvoir muy buur di buum di bumi di def lu ko neex nu ko neexee kañ la koy neexee il n'a aucun respect pour les sénégalais couvre-feu nga ne décrété nga douze jours buy waaj a jeex wala jour bi muy jeex génnal nga wax ak sénégalais yi mais non no non non da ngay gis benn Antoine taxaw. fële bind benn communiqué mais Antoine n'est pas n'importe qui, c'est le l'Intérieur quand Euh, bon d'accord il n'est pas n'importe qui. c'est le ministre de l'intérieur d'accord mën na wax mais ñun aussi nous les populations ne sommes pas n'importe qui. nous sommes des Sénégalais te tey jii si Antoine ou Macky Sall ils ont des pouvoirs parce que ñun ñoo cotiser jox leen pouvoir yooyu moomuñu ko. sunu ay pouvoir la ñu jox leen ko kon lépp luñ ciy utiliser nañuy taxaw di waxtaan ak ñun. nañ ñu jox respect. Mhm. mais le problème en nekk que euh, Macky Sall et son ministre de l'intérieur Antoine joxuñu ñu benn respect. d'accord et les autres préfets et gouverneurs yi nekk ci région yi joxuñu ñu respect. wax ji wax ji mooy loolu léegi nag bu ko defee. li li muy jur mooy sénégalais itam dañuy saboté. à leur manière ñoom tam dañ leen di war a nekk taxawaayu sénégalais yi saboté. ci moment bu ñuy war a nekk seen seen taxawaay dama la ko laaj loolu ndax noonu la war a demee. man damay man damay invité sénégalais yi ci ñu sàmm seen bakkan sàmm seen bopp. Hmm. bu ñu xaar état bi sàmmale leen ko. parce que duñ leen ko mës a sàmmal. état bi président bi ma gis nii gëmul sénégalais yi je le dis moom ak seen ministre gëmuñu ñu. gëmuñu ñu. ils s'en fichent bu ñu xëyoon sénégalais yi di dee par par milliers seen yoon nekku ci. alors je suis désolé. relevé nga sànq benn manque de confiance mi dox ci diggante autorité yi ak euh, askan wi. tey yéen mouvement Y en taxawaay ngeen war a am ngir convaincre les populations ñu takk masque parce que bu ñu demee ba dégg ci ay étudiants di wax ni ñoom euh, du ñu def cours en ligne te feebar baa ngi fi te gis nañ tamit euh, relâchement am na bu metti euh, ci le monde scolaire boobu. waaye ils ont raison parce que dem nañ ba gis ni euh, affaire bi mu ngi dugg ci université yi di dugg surtout ak variant anglais bi nga xamante ni sa waay mara détail dafa doy waar dafa gaaw a duggee donc xam nañ ni yëf yi voilà mu ngi fi euh, mooy li ma wax na Sénégalais yi jóg. jëlal seen bopp seen kaaraange ngeen ci fas yéene taxawee parce que gisoon nañ ngeen di. ba léegi ñu ngi ci euh, NTS le nouveau type de sénégalais. Mhm. gis nañu bu ñu wootee la propreté de la ville. Mhm. gis nañ ni ngeen ci taxawee woon. Mhm. mais bii ci Covid bi man. gisuma leen ci parce que ci première vague bi. ci première bi dañu investir jël suñuy propre moyen tourner suñu ay capsule def suñu clip di envahir les rues. de Dakar de de de de de Kaolack Sénégal partout avec les esprits de Y'en a di sensibiliser di uti nos propres partenaires di defar ay masques di ko distribuer mais pour pour pour pour faire passer les capsules yi nga xamante ni ñun ñoo ko tourner ak suñu ay moyen bopp. mais pour faire passer ces capsules. télé bi nga xamante ni mooy mooy li ñuy wooyee chaine leader muy RTS. bu ñu demee pour euh, yóbbul leen ko pour ñu diffuser ko dañuy gis ni non waa Y'en a marre ñoo ko def. dañ leen di fayeeku wala duñ ko jël. non ma la. dañuy gis ni chaîne la chaîne hmm. leader bi Sen TV la waaw. non non non <laughs> hmm. ko jël. Hmm. leen di fayeeku xaalis. Euh, de tout façon mënuloo. Euh, buñ ñu fayeeku woon xaalis ñu euh, parce que ñeme wuñ taxaw dañu fay nañu xaalis mais ils n'ont pas diffusé loo xamante ni c'est pour sensibiliser c'est pour l'intérêt de tous les Sénégalais c'est grave diffusé wuñu ko Y'en a marre mooy déranger wala wala lan la parce que parce que euh, peut-être kanamu kilifa giñ fa gis muy sensibiliser sensibilisation bu am njëriñ te kanamu kilifa warul jàll ci chaîne nationale ah. parce que chaîne u Macky Sall la fu Macky Sall di génn waruñ fa génne xam nga <laughs> heureusement ba di liberté de télé yi amee ba ay Sen TV ak yooyu ñëw. Mhm. ci lay Macky ci la ñuy génne kanamu Macky Sall teg ca kanamu kilifa mais bu doon RTS fi nekk ba tey. d'accord mhm. non waxatuñu mais est-ce que loolu war na tax ngeen relâché wu ci deuxième vague bi. relâché wu ñu ñu ngi def ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi koy diffuser ñu ngi koy diffuser ci internet bi def ci première vague bi mais deuxième vague bi la ngeen ci def. waaw on a continué de sensibiliser on a continué de diffuser nos capsules mais ci internet bi. très bien on a continué aussi de parler. avec les Sénégalais eh, dans des émissions prime time yi ay seen show yi nga xamante ni. sénégalais yi dañ koy kii par exemple. dama daw ay kilomètres. parce que euh, xam naa ni bu ma ñëwee lañ fiy waxtaanee. njëriñu Sénégalais yi donc genre yu mel nii nga mun a am. Hmm. pour profiter en tant que euh, une personne influente. wax ak Sénégalais yi ne leen leen seen masque. Hmm. aar leen seen bopp. Hmm. aar leen ñi ngeen jege mag ñaa ngi dee. te ñu tàggu. dëgg la dañuy déglu tout souvent euh, les la santé di wax ni woo nañ ñëpp ñëw jàpp ci combat bi yéen da a xaar toog fi ngeen toog di xaar ku leen woo wala def ngeen le premier pas. bi amee premier cas ñun ñoo dem vers le ministre de la santé ñun ñoo njëkk a enregistré un single de sensibilisation. pour bañ sax ñu naan ay woy booy dañu mën jël seen yoonu bopp dem dégluloo ko ko ne ko xoolal techniquement ndax est-ce que li ñu ci wax lii la bëgguñu def erreur et l'ont écouté il l'a écouté avec euh, son équipe ñu valider ko ci lañ koy soog a sax clibé à l'hôpital Fann soog ko génnee mais est-ce que di gis clip boobu jàll RTS. jamais est-ce que di nga ko di nga di nga di nga gis ba pare bañ nañ ko ba suñu ay slogan sax lañ jël aar sa bopp aar ñu la jege <laughs> mais c'est-à-dire ñoom bu amee yaanaamaar rek. yaa ngi problème ñu suur ko. <laughs> yaa ngi problème il faut que ñu avancer dinañ ñëwaat ci ci ci kilifa euh, il faut que ñu wax ak euh, docteur ci wàllug euh, recette douanière yi nga xamante ne ni ñoom ñu ngi def itam seen kéem kattan ci période quand même bu un peu difficile muy période mbas bi ñoom ñu ngi recouvrer Euh, loolu lan lay tekki day tekki ne ñoom euh, dafa fekk ne euh, mbas mi naam mi ngi fi waaye ñu ngi def seen kéem kàttan pour dugal ci gafag ak état li nga xam ci ni nii moo di koppar. waaw vraiment ñoom mérite nañ quand benn satisfait si mm. parce que leen parce que vraiment seen liggéey am na solo. Euh, crise bi ñu nekk nii activités yi nekkoon au ralenti. Euh, malgré tout seen objectif atteindre nañ ko. voilà parce que boo xoolee euh, en 97 dimbali progression bi rek donc en 2017 déjà ñu ngi woon ci presque ci 897 milliards. ñu ñëw ci 2018 dem ba ci 925 milliards. daaw ñu ngi ci à peu près 985. parce que on parle de plus de milliards boo xamante ne nii na ko. daaw ñu ngi ci milliards comme ça et puis seen objectif moo doon atteindre la barre des milliards mm-hmm. donc cette année fait la donne a fait une progression de vingt sept milliards par ci contexte bi de moo tax ñu war leen féliciter encourager leen bu baax a baax d'accord croissance bi euh, wàcc na bu baax a baax euh, ñu dégg FMI def ay projection euh, wax ni peut-être que nañu egg wala lu ko ëpp mais est-ce que taux boobu tey c'est Euh, waaw mais 5 pour cent par rapport ak lan par rapport ak li nga dund ci ren bi. Mhm. <laughs> bokkut ak 5 ah, ah, waaw moom la wax man 5 mhm. pour cent yooyu donc def projeté par rapport ak fi toll ren mais pas par rapport ak fi mhm. parce que lu suux ba ci biir biir su génnaatee tuuti donc c' pas c' pas aussi aussi euh, fantastique mais ce qui est sûr que bu mbas mi continuer nii. Euh, ñu jëlaat yeneen mesure yeneen secteur gën a wu je pense que dañ ko mën a revoir à la baisse. voilà parce que comme on le dit comme projection la donc les grands travaux tant que ñu ngi continuer euh, yeneen secteur aussi dox tuuti lu mel ne mbay meeg yooyu donc mën nañu mën nañoo. voilà napp alors nan lañu mën a comprendre tey ci xaalis bi nga xamante ne ni nguur gi waxoon na ni génn nañ ko. Ah. Euh, c'est des prévisions bien entendu 1000 euh, milliards après ñu wax ni ci 1000 milliards yooyu ay 600 et quelques moo jot a dugg est-ce que gisoo ni tey dafa baaxoon ñu évaluer ba pare balaa ñu dugg ci deuxième vague. Euh, loolu moom bokk na daa suñu Sénégal. dañuy tañ a tañ xëj rek maanaam da ngay wax benn affaire jékki-jékki rek benn décision kon ni sa yoon. mais taxaw évaluer moom duñ koy def bëriwul. te loolu dafa am solo. parce que boo évaluer day tax nga xam li dox. Mhm. nga gën cee xool a parce que bu leen te ne am na lu bari war a corriger te corriger ko nga duggaat ci leneen da xool par exemple politique d'emploi fi am yëpp ñaata milliards lañ ci injecté mais jeunes yu bëri sax xamuñ ko ci emploi bi. Mhm. loolu erreur mënu ko weesu. erreur ko weesu. d'accord Fatou mhm. alors euh, kilifa euh, euh, bu ñu ñëwee ci li nga xam ne peut-être mooy communication bi présentement ñu bari dañu jàpp ne ñi nga xam ne ñoo fare ci gouvernement bi dañu ko gën a tënk ci lu jëm ci wàllu vaccination bi que sax ci li nga xam ne mooy sensibilisation bi yow ban xalaat nga am ci loolu. waaw déjà xam nga docteur dafa daanelee léegi fu am solo. Mhm. gis nga mooy li may wax rek ci manque de sérieux. tout parce que première vague bi bi mu ñëwee. le président de la République il a fait appel à tout le monde. ñëpp bàyyi seen seen seen obédience. politique euh, seen lépp teg ko dem wuy ji ko ñu toog waxtaan. ah mu ne nii laa xalaatee ñoo ñu ne ko ñun tam lii lañ la ciy dollil ñu génn mu tënk ne ah bi ma biñ ma waxee ak li ma yor lii lañ koy doxalee. biñ koy doxal di doxal di doxal ñu gis ni y a une fausse ñenn ñi téye seen bopp mais ñenn ñu continuer pour le bien-être des Sénégalais. Absolument. mais à un moment dem nañ ba fenn. Mhm. nañu taxaw ñu def évaluation. mais ngay gis ay ministres yu arrogant bu ñu leen <laughs> interpellé ci li ñu leen dénkoon ñuy saaga nit ñi ak naan dama leen di porter plainte ah. des responsabilités yoo xamante ni dañu jël ay nit dénk leen ko loo xamante ni sa appartient à tous les Sénégalais ne yow yaay gérer lii ci xeex bi yow yaay gérer camp yi yow yaay défenseur bi yow yaay attaquant bi ñu pare attaquant bi dugalul ñu ko supporters yi naan ko mais bal bi ñu la paas yow kese góor newu fa dara newu fa lu tax dugaloo ko mu ne ko boo ma ko waxatee ma porte la plainte c'est-à-dire comme si nous n'avons pas le droit de de de de de de de de de de de de de demander des comptes alors ñu xëy bëreet deuxième vague bëreet vaccination xam nga lan la nit ñi di wax. Mm-hmm. je te dis ah les sénégalais te disent que deuxième vague bi dañ ko créer pour jàllale seen vaccin bi. Mm-hmm. c'est ce que les sénégalais disent. mais yow tey lan moo ciy sa xalaat ci peut-être. man li ma ciy xalaat la réticence aujourd'hui des sénégalais ci lu jëm ci vaccin bi. bu fekkente ni vaccin bi lu wér la lu am la lu baax la on est preneur. sérieusement mm-hmm. parce que y en a marre aussi avec ouais. euh, ce virus absolument su fekkee y a aucune politique derrière comme ni ko ñenn ñi di njorte ak di ko waxee yéen a ngi def saytu boobu pour xam ba xam. mais bien sûr mais bien sûr ñu ngi ciy ñu ngi ciy ah mais bien sûr. pour alerter bien sûr bien sûr ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax parce que mhm. aussi on va pas rester comme tout le monde. Mhm. parce que mooy comme li nga wax quand on a un rôle à jouer dans un pays da nga koy assumer. bu fekkente ni boo waxee tu vas influencer ne serait-ce qu'une mm-hmm. war nga taxaw nga wax mais balaa ngaa wax aussi li ngay wax na ko maîtriser na nga xam lan la. pour le moment ñu ngi ciy def ay jàngat ñu ngi ciy échange ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci yeneen réew. par rapport ak le vaccin bés buñ ci amee lu ñu doy ñun yaanaama dinañ def conférence de presse. Ah, ah, ah. dañ ci wax ñu ne ah vaccin bi kat léegi lii lañ ci xalaat. alors pour changer puisque li ñu dese bëriwul. ñu wax ci mbiru euh, euh, Babacar Babacar Boubacar Seye. Horizon sans frontières euh, bi nga xamante ne mi ngi ci kaso bi boobu léegi nag mi ngi bëgg def fii fan aussi bëri na ay kuréel yu taxaw ngir jàppale ko mais moom lanceur d'alerte la comme yéen ñi ngeen koy defee yenn saa yi est-ce que lii tey bokk na ci li nga xamante ne mën nañu ñol démocratie ak ban jàngat nga am ci li nga xam ne mooy téye bi ñu ko téye ci ay compte yoo xam ne daf ko demandé ci union européenne bi muy def ci émigration Boubacar Seye dafa demandé ay compte mhm. ne fan la xaalisu union européenne bi dugg mhm. je pense c'est ce qu'il a dit man je vais moi plus Boubacar euh, Seye compte yooyu ngay demandé di laajte fan la xaalisu Union européenne bi dugg moi je man je répondrai à la place de l'État sàcc nanu ko. ah oui oui. ils l'ont ana xaalis ana xaalis bi et tout le monde sent qu'il y a de l'argent dans ce pays. fan nga ko teg loolu. tout le monde sent qu'il y de l'argent dans ce pays mais dafa deme côté. des yoo xamante ni bi ngi leen di xam en il était incapable d'acheter un paquet de cigarettes. Aujourd'hui, c'est eux qui roulent avec des véhicules qui coûtent 80 millions plus, avec des immeubles. jàpp suñu suuf yi séddoo ko yeneen ak yeneen ak yeneen j'en passe. alors xaalis boobu defuñ lenn lu dul sàcc nanu ko. alors boobu ba léegi on parle de quoi. teg mooy. Mhm. fi ma ko teg mooy depuis que le Sénégal est Sénégal. Mhm. à chaque fois problème yi ñuy jànkuwanteel lan la euh, problème mu santé problème mu éducation problème l'emploi des jeunes alors te chaque année ngeen dégg ñu ne Union européenne ou FMI ou Banque mondiale a subventionné le Sénégal à hauteur de tant de milliards. pour renforcer le secteur de l'emploi des jeunes. Mhm. te boobu ba les chômeurs sont comptés chaque jour il y a mille chômeurs de plus qui arrivent. mais aujourd'hui qui moom yu muy ñëw ci mhm. mhm. problème de l'emploi des jeunes kon dañu ko sàcc. ñu ne la. mi. boobu ba léegi day gën di feebar pajum Sénégal mm-hmm. hôpital yi ñépp xam nañ li fa xew mm-hmm. nit ñi dañuy am sax problème mu jënd ay ordonnance ci biir euh, hôpital yi ci biir kii yi nii boobu ba léegi nos médecins dañuy daw di defi ay ay ay ay ay xarmat en en Europe ci dëkk yi ñu leen di fay xaalis bu bëri euh, hôpital yi tey la gën a feebar mm-hmm. amuñu plateau médical baax saa tout le monde le ana xaalis boobu injecté wuñ ko ci sante bi kon dañu koo sàcc. <laughs> alors ñu ñëw ci beneen bi muy euh, muy muy muy muy l'éducation. tout le monde sait que l'éducation est euh, malade et nous avons des professeurs yoo xamante ni dañu taxaw. Ah, nous avons des élèves yoo xamante ni ñoo gën a intelligent gën a excellent. Mm. ci tund wi. loolu saa tund woon ndax temps bi euh, kilifa parce que liñ dese bëriwul wax nga ko euh, kii yi bëri na secteur yi bëri na mën nañu ko fay lim comme ni nga ko waxee mais tey combat bi organisation yi naam bëri nañ mais tey lan moo war a nekk tey lu jàmp ngir peut-être exiger la libération de Boubacar Seye qui a été quand même ah. un lanceur d'alerte et qui continuerait peut-être à l'être. qu'on se mobilise, qu'on se mobilise. J'invite tout le monde, l'opposition, la société civile, les militants, les activistes, j'invite tout le monde, les Sénégalais, non marabouts, pour que vraiment ñu libéré non seulement Boubacar Seye jox ko ay ndàmpaay ba pare arrêté tëj gi ñuy tëj doomu aadama yi. cest dire dafa jot nag gis nga jot nañu taxaw duut baaraam. xam nga à chaque fois euh, damay su may wax parce que man dafa am noo xam ne dañ ma ko yaree. dëkk dafay am. ñoo xamante ni ñoo fa nekk ñoo fa mag. wala ñoom la ñu dénk lii ñooy kilifa yi. moo tax à chaque fois ci suma wax may interpeller nos chefs religieux. parce que kat ñoom ñoo fi suñu Serigne Touba tey. ñoom ñoo fi suñu El Hadj Malick tey. ñoo fi suñu Cheikh Ibrahim tey di fi suñu Limamou Laye j'en passe. tey jii dafa jot. ñi nga xamante ni ñoo leen fi wutu taxaw wax ak Macky Sall mu bàyyi li bu nekkee. Mhm. yàpp gi mu yàpp sénégalais yi manque de respect gim ñuy manqué de respect tëj gim ñuy tëj ndulli gim ñuy ndulli tooxal gim ñuy tooxal restez chez vous xëy teg këru néew di doole yi baadoole yi bàyyi fa ñaari kër yoo xamante ni ay dañ la naan belle-sœur u Amadou Ba yooyu. Mhm. ñu wax ak Macky Sall mu bàyyi loolu. ñu wax ak Macky Sall mu respecter Sénégalais yi moom avec son gouvernement jël l'argent du contribuable injecté ko delloo ko ci Sénégalais yi ba suñu jeunes yi du ñu mën a taxaw di dugg ci ay gaal di xaddi di découragé di dem di dee ci géej gi. alors c'est clair ni Boubacar Sall ñi ñuy waxee ñu leen di déggal ñoom suñu kilifa yooyu noonu la ñuy yilifee tamit Macky Sall. ay kilifa diine lañu nañ wax ak moom. ñun de déggal nañ leen ñu am taalibe lañ. absolu luñ ñu sant ñu def ko. mais moom na ku ñàkk taalibe la. mais continuer leen wax nag moom <laughs> alors ni Boubacar Seye di réclamer des comptes noonu la sénégalais yi bëri tamit di réclamer de comptes à Mansour Faye mi nga xamante ne nii moom la ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu séddaleem ceeb bi ak lu ni mel tey le constat mooy changé na dem beneen ministère ah. est-ce que loolu tey foofu tamit euh, lépp dafa doxee tàbbi géej ci transparence ci koppar yi nga xamante ne dañ ko ko dénkoon évidemment ah <laughs> cest à xam nga mooy tâtonner gi ma lay wax c'est-à-dire nous ne sommes pas sérieux te pareeguñu pour sérieux on peut pas du jour au lendemain être gardien de but jékki jékki jékki jékki jékki jékki di encaisser ay but ñu la non kaay ñu def la kaay ñu def la défenseur biñ lay form c'est-à-dire moo tax on a jëluñu nañ waxante dëgg quoi sérieusement soyons sérieux je pense que lii waratul nekk sax débat fii depuis que ma xàmmee ba léegi musuñu am président de la république boo xamante ni surtout Macky Sall moom ci raw au moins de na xaaral ma jël docteur jox ko la place qu'il faut pour régler les choses d'accord doo ko dégg mukk. d'accord alors ci doo ko ma jël. sama rakku jabar wala sama magu jabar. pour plaire à jox ko dénk ko ay yoo xamante ni xamu ca xaala wala kasira. su ca defee gaaf ma jël ko yóbbu ko fu gën a kii au fait il se moque de nous Macky Sall daf nuy kokkali. d'accord alors ci wàllu foncier euh, gisoon nañ nga am ci benn taxawaay euh, ci yenn. malentendu bu amoon ci ay population ak ki nga xamante ne ni mooy directeur Sénico loolu am na ci ndox mu sedd bu ci am mais gis nañu ni yéen tamit combat yi ngeen di porté jëm na ci wàll wàllu spoliation des terres nga xam ne nii jusqu'à présent dafa nekk une réalité fii ci Sénégal mm-hmm. eh bien ñu terminé ñu terminé émission bi jeex na. allez-y waaye de passage di di saluer le geste noble. Mm-hmm. le geste magnifique. Mm-hmm. le grand geste de ce monsieur Abdoulaye Dia qui est juste un Sénégalais et di nitu diine di nitu alxuraan ki nga xamante ni. dama jàpp benn wax peut-être euh, il faut que ma wax ko parce que dafa fort. Mm-hmm. jour bi ma njëkkee toog ak moom di waxtaan ak moom ci problème bi dafa ma ne kilifa. bi may ñaan yàlla benn kër laa ko ñaanoon. Mhm. wala à la à limite ñaari kër. absolument bu yàlla demee ba may ma ay hectares. Mhm. si je suis bête ci lay jàpp ni pour man kese la néegu xorondong sax sañu ma ko toj waxuma la néegu ay doomu aadama ay être humain mhm. dinaa leen bàyyi ñu dëkk ci ci xol bu sedd guy duma leen fitnaal li ma jot a metti kañ mooy ça un an xamuñu ci guddi gan lañ nekk. il ne dorme plus. c'est ça qui m'a fait très mal donc ñuy invité. Mhm. tous les hommes d'affaires. ay Babacar Ngom ak ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di leen invité ci. ci ci ci ci comportement boobu. di ma di ma di ma ay nit en période de de Covid. non état moom maa ngi ñëw moom. voilà ndax ñoom mhm. ñu jàpp waa Mbour 4. Mhm. génne leen. taj seen kër yi et ce qui me fait bàyyi fa ñaari kër ñooy ñaari kër yi kii rakku Amadou Ba moo ko moom. kële euh, belle-sœur Ba moo ko moom. Mhm. c'est grave sa à dire frustration bi ñu nekk di créer. ak di ko def ci askan bi suñu ko moytuwul fépp fu réew mi mujjee ñoom ñoo ko causé. c'est clair alors Mor euh, comme li ñu dese bëriwul ñu ñu tënk ko rek ñu tënk ko ci dette bi nga xam ne c'est plus de neuf mille milliards ñu tuddoon ko mais également est-ce que tey jafe-jafe bi ci koom te mbas mi indi ko tax Sénégal gën a mën a lebiwaat ak lan mooy pexe bi ngir suqali yenn entreprise yi nga xam ne nërmeelu dellu lañu ci tënk rek. Euh, waaw parce que dette bi je pense que ñu ko estimé exactement à milliards. Mhm. Euh, donc mais quand même mi ngi tourné autour de pour cent donc euh, mais li xaw a jaaxal sax tuuti FMI parce que année passée lancé ci alerte moo doon taux d'endettement bi dafa xawoon a gaaw tuuti. Mhm. parce que boo dente boo xoolee 2012 ça autour de pour cent. Mhm. donc presque sept après. mu dem ba soixante et quelques pour cent donc dafa gaawoon voilà euh, grand travaux yi ñoo ko waraloon aussi. Mhm. voilà donc mais période bii ñu nekk nii moom euh, je pense que. déjà ñuy def ay projection par rapport ak donc euh, PAP 2 bi mhm. ah euh, PAP 2A bi euh, ñu ngi ci def ay projection et ñu ngi war a uti ji presque neuf mille et quelques milliards mhm. voilà neuf mille et quelques milliards yooyu pour plan de relance bi voilà donc ñu ko estimé à peu près mille parce que quatorze mille sept cent et quelques mhm. milliards cela veut dire que foofu aussi leb bi dana dañ un benn incohérence parce que au moment où ci mbas mi premier vague bi président Sénégal Sénégal ak yeneen président ñuy wax dañu bëgg ñu bàyyi leen suñu bor yi ndax mbas mi laal nañu léegi nga ne sama économie nekk na dina war a nekk en bonne santé lebal leen ma xaalis yu bëri bëri dinaa mën a fay ku mën a fay kon normalement waroo wax ñu baal mhm. mhm. jeex na demet dañuy baal question boobu rek euh, Mor Gassama ñuy fàttali ne économiste nga sa xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu koom ba yeneen ba ak Fatou Abdou ñooy daanal gars fi daaneel gars yi ñoo ñoom ñaar daal mënuma ñoom dara en tout cas ñu ngi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. elles sont juste excellentes. voilà voilà c' est yow itam kilifa bu mouvement a marre ci disponibilité bi. Ah, surtout fa nga jógee sori na waaye nangul nga ñu invitation bi gërëm leen bu baax a baax Ndeye Dimet ak Fatou Abdou Ndiaye mbokk yi jox leen di day incha seen show dina ñëw la semaine prochaine ak yeneen incursion jaa ngeen jëf.